asalaamaaleykum mbokk déglukat yi euh, dal nag ak jàmm ci seen émission allo docteur may nuyu suñu invité tey euh, di madame Ndoye Khary euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay madame Rosalie. nga nekk responsable éducation formation pour la santé ca district sanitaire Dakar Sud dama lay bàyyi nga nuyonteeg auditeurs yi wax leen yow yaay kan ak fan nga jógee district sanitaire Dakar Sud ban zone la concerné. Mhm. merci Rosalie donc maa ngi nuyu auditeur wu ak auditrice u Sud FM yépp yi ñuy teewlu ci waxtu wi donc maa ngi tudd madame xarindooy Ndoye assistante sociale la ñu dénk ma li ñuy wax yeete ci wàllu wér-gi-yaram ci district sanitaire Dakar Sud district sanitaire Dakar Sud nag boo ko déggee benn la ci fukki pàcc ak ñaar yi nga xam ne moo composé région Dakar parce que dañ ko def en zone ñun ñoo féete fii ci Ndakaaru mën naa wax biir Dakar Euh, ñun ñoo euh, ëmb li nga xamante ne mooy commune gore commune Dakar Plateau commune Fass Colobane Gueule Tapée ak commune Médina donc ñeentu commune yooyu bëri bu fajukaay yi fa nekk donc mun nañu wax ne ñooñu ñoo composé li nga xamante ne mooy district sanitaire Dakar Sud. Mhm. waaw nga nekk responsable euh, éducation information pour la santé loolu pour lan la. waaw loolu liñ ci jublu rek. yee ñi nga xamante ne ñooy sunu way jëfandiku yi nga xam ne ñooy jëfandiku euh, kër docteur mais également askan bi yépp ñu yeeleen ci wàllu wér gi yaram parce que defe naa faj bu amee aussi fegu ci feebar am na te pour ñu mën a fegu ci feebar faw mu am ñoo xam ne ñooy andi loolu nga xamante ne mooy ay conseil euh, maanaam di di jox ay bataaxal nit ñi te nan lañ mën a def ba fegu ci feebar yi donc ñun ci loolu la ñuy yëngu waan damay wax ne loolu du ñun rek ñoo koy def dafa am ñoo xam ne ñoo ñu ci dooleel di ñu ci jàppale ci fi nga xamante ne fa lañ nekk muy suñu ay prestataire de santé parce que wax ji du ñun rek ñoo mën a wax ak population district sud bi yépp mais li nga xamante ne mooy suñu ay acteurs communautaires suñu ay leaders communautaires ku ci nekk daf ñuy feelu jàpp ci li nga xamante ne mooy euh, naxtaan boobu ñuy naxtaan population yi ak ñaax boobu nga xam ne ñu ngi leen di ñaax ci wàllu feebar yi. Mm-hmm. Euh, madame Ndoye lu waral tey waxtaan wi nga xam ne ñetti poñ yu am solo lañ ci waxtaanee euh, benn di malnutrition ci tout tànk yi ñi mm-hmm. amagul. bon ñi juddu ba am juróomi at. Mm-hmm. ak li nga xam ne mooy supplémentation en vitamine A ak it wàllu deparasitage waaw li waral euh, solos waxtaan bi dañoo génn ci ayu bés bi ñu weesu ci benn campagne boo xamante ne li nga xamante ne mooy région de Dakar daf ko organiser ci district yépp district gu dakaar yépp daf ko fa organiser ñu tàmbali ko woon ci juróom fan ci euh, juróom-ñetti fan ci weer bi wéyaloon ko ba fukki fan ak ñett ci weer bi donc amaloon ko ci district yépp ci ndimbalu direction de la santé de la mère et de l'enfant mais aussi ci jàppandalu euh, région médical parce que coordination bi yépp moo ko yore woon journée yooyu muy ay journée yoo xamante ne également dañ ci doon saytu di xool xale yi nga xam ne ñoo xiiboon ci suñu ay gox-goxaat pour ñu mën leen jàppale andi leen ci bërëbu fajukaay yi ñu jàppale leen ba ñu am tawféex. Mhm. donc journée yooyu aussi bi ñu ko defee ñu gis ci ay tolof tolof gis ci loo xamante ne aussi jëmul kër. ñu ne woon nag faw ñu taxaw waxtaan ak sunu ay population parce que wérgu yaramu askan bi rek moo ñu tar tax a jóg. Mhm. gu yaramu sunuy tout tànk yi rek moo ñu tax a jóg. donc gis nañ ne ni ñu population yi waroon wuyu ci loolu nga xamante ne mooy euh, campagne bi defuñu ko loolu moo tax daal ñu def taxawu mhm. seetlu bi. waaw du ñàkk ñu ñëw def ci def bilan wu campagne boobu. Mhm. xool point fort yi ci am yan dam ngeen ci am waaye tamit jafe-jafe ngeen ci am pour jot seen cible ak li ngeen di li ngeen ci doon bëbët kon dañuy euh, dugg ci li nga xam ne moom mooy malnutrition. di mhm. poñ bi njëkk euh, mu doon loo xam ne bokkoon na ci seen campagne. mais dama lay bàyyi euh, nga xamal auditeurs yi xamal askan wi. Euh, malnutrition mooy lan. lan moo tax tout le temps ci poste de santé yi ci district yi mu soxal acteur de santé yi torop ak ñi nga xam ne ñooy yëngul ci lépp daal loo xam ne dafa jëm ci feggu ci wàllu wérgu yaram. Mhm. waaw malnutrition mun nañu wax ne lompoñ la goo xam ne xiiban goo xamante ne ci lekk lay jóge te ñu nettlu ko ci sunu tut tànk yi mu am saytu boo xam ne dañ ko ciy def parce que ci liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def ci suñu ay poste suñu ay centre de santé ba si hôpitaux yu mag yi dañ fay jël en charge ñooñu nga xamante ne dañuy dund xale yooyu nga xam ne dañuy dund ak loolu nga xamante ne mooy malnutrition parce que ci suñu ay euh, activité de routine maanaam li nga xam ne ñu ngi koy def chaque jour xale yi di ñëw ñu di leen seet si la ñuy saytu seen wér-gu-yaram suñu saytoo xale buñ gis ne ah kii kat euh, wér yaram yaramam xaw na sooxe maanaam seetlu nañ ne kat xale bii dafa am li ñuy wax malnutrition maanaam xiibon na xale boobu dañ koy jaarale ci yoon bi nga xamante ne fa la war a dem pour wàllu faju parce que boo seetee ci suñu bërëbu fajukaay yi dañuy def loolu ñuy wax suivi promotion de la croissance xale bi bu muy juddu ba kër ba muy am juróomi at dañ koy peese di xam tolluwaayam selon at yi nga xamante ne moom la at wala selon weer yi nga xam ne moom la xale bi am su dee xale bi day soog a juddu ba kër ba muy am ñaar fukki weer ak ñett weer wu ne war nañ ko yóbbu ko docteur même bu ko dara jotul ñu peese ko parce que mhm. loolu dafa am solo parce que daf ñuy permettre ñu saytu ba xam ndax xale bi mu ngi jaar ci yoonu màgg bu normal euh, bu fekkee ne nag fukki ñaar fukki ak ñett yooyu romb na xale bi mun nañ ko jox rendez-vous juróom benn weer yu nekk ñu peese ko bu ñëwee kër daa ñu xool xale bi identifier xale bi ñaataat la am dinañ xool aussi poids am nan la toll dinañ xool également loolu nga xamante ne mooy indice poids âge selon poids bi mu am ak ay atam ndax méngoo na wala am na lu ci sooxe wala dara parce que ci loolu la ñuy natt ne ah xale bi kat màggaayam am na lu ci sooxe donc faw ñu seet ban taxawaay la ñuy def pour moom donc ci kaw loolu aussi dinañ am euh, li nga xamante ne mooy ay entretien individuel maanaam dinañ waxtaan ak yaay ji wax ko ne ko ah sa doom ji kat mu ci yoonu màgg bu baax sa doom ji kat màggaayam xaw na sooxee sa doom ji kat dafa xiibar nangam ak nangam su ko defee su jaree ñu jox ko ay conseil ci wàllu lekku xale bi ñu jox ko ay conseil su fekkee ne aussi dafa euh, jëfandikoo bërëbu fajukaay boo xamante ne dañuy def loolu nga xamante ne mooy ay togg dinañ ko wan kat yan lekk la mën a boole maanaam pour mën a jox doom ji lekk boo xamante ne dina ko jariñ ci wàllu màggaayam moom li ñuy wax démonstration culinaire loolu dañ koy def ci li nga xamante ne mooy suñu bërëbu fajukaay yi mais au delà loolu aussi am na yeneen activités yooyu xamante ne dañ koy def parce que tey jii boo yoree sa doom muy soog a juddu dinañ la xiirtal nga nàmpal ko ak ween mm-hmm. wa nàmpal ak wenn kese ba mu am juróom benn weer su juróom benn weer yi paase nga doog a jox ndox doog a dugal ay lekk yeneen parce que dañuy wax ne xale bi bu muy juddu ba am juróom-benn weer weenu yaayam kese doy na ko lépp lu mu soxla mu ngi ci soowu yaayam su juróom-benn weer yi passé nag ñu commencé di jox li nga xamante ne mooy ay buy yi maanaam dugal li nga xamante ne mooy ruy boo xamante ne dañuy def ay farine yoo xamante ne vraiment dafay am ay ferñeent yoo xamante ne ñu toggee riz bi jox ko xale bi dina am njëriñ boo xamante ne dina ko am ci xale bi loolu nag ci biir day amaale aussi ñuy joxaale li nga xamante ne mooy ferñeent boobu di vitamine A mais également di déparasiter xale bi ba pare di continuer rek di ko ba ker muy am mhm. juróomi at loolu daf ñuy permettre ñu xam xale bi ndax xiibon na wala xiibonul mhm. Oh. waaw mm-hmm. euh, damay euh, fàttali auditeurs yi rek ne ñu ngi suivre seen émission allo docteur ci kanam tuuti nañ ubbi antenne bi ci 33 825 18. jafe-jafe tam ci topp seen calendrier vaccinal loolu yëpp da nga ciy ñëw madame Ndoye sànq yaa ngi doon wax ne euh, daf ci daf leen di permettre aussi ngeen jox xale yi vitamine A dañuy dégg tout le temps supplémentation en vitamine A. Mm-hmm. vitamine A boobu lan mooy njëriñam ñan lañ koy jox ak ci ban ci ban périodicité. waaw. <coughs> vitamine A benn ferñeent la boo xamante ne dafa baax ci màggaayu xale parce que day suqali màggaayam daf koy musal aussi ci yenn feebar yu sew yoo xamante ne mooy farataal di lor suñu njaboot parce que su ngeen seetee xale yi amagul juróomi at li leen farataal di dal mooy ay xeetu socc lu mel ni feebaru ngas bu ñëwee mën na leen a yóbbu li nga xamante ne mooy euh, euh, xeetu socc dina farataal di leen dal lu mel ni biiru daw aussi mun na yobbu xale yi te loolu nga xamante ne mooy vitamine A bi soo ko joxee sa doom mun nañ wax ne da koy fanqal bu baax loolu nga xam ne mooy feebar yu sew yooyu ko mën a lor ba pare day suqali màggaayu xale bi wax naa ko sànq mais aussi dina ko musal ci li olof di wax feebaru mbéppéen mbéppéen mooy li ñuy wax cécité crépusculaire mooy ñooñu nga xamante ne su timis gi langee rek seen seen bët yi xaw a fulu lëndëm donc li ñuy wax vitamine A da ko ciy dimbali mais aussi dina ko dimbali ci yenn feebaru der yi donc vitamine A lu am solo la te suñu yaram du ko liggéey donc ci lekk bi lañ koy jëlee wala ci supplémentation boobu. Mhm. su ko defee ñu daal di ko garder ci suñu fois saa yu ko yaram bi soxlawee rek ñu mun ko libérer. Mhm. jëfandikoo ko. supplémentation boobu euh, ñi ko soxla naka lay demee dañuy jox xale yi rendez-vous wala. Euh, comme nit ñi ñooy di leen di peese ci la ñu leen di xamal ne wax dëgg dañu war a jël ci vitamine boobu walla déet. waaw xale bi ku ne xam ne ne fi mu nekk nii li ñuy ñaan mooy ne ko xale yëpp juddoo kër docteur soo juddoo kër docteur déjà commencé nañ la wax rendez-vous yi. mu ci wàllu ñàkk bi su defee ñàkk ba war a toll ci jël vitamine A parce que vitamine A mu ngi koy commencé jël su amee juróom-benn weer su amee juróom-benn weer lañ koy commencé jox vitamine A di ko ko jox juróom weer yu nekk. su dee dara dal ko dina am nag xale yi yenn feebar yu leen di dal bay soxla peut-être beneen supplémentation boo xamante ne en dehors bu routine bi la mais bi nga xamante ne moom la ñuy def moom juróom benn weer yu nekk dañ koy jox xale bi ba ker ba muy am juróomi at. Mhm. donc loolu day àndaale déjà ak PC bi. àndaale également ak yeneen rendez-vous yi nga xamante ne xale bi dina ko ñëw ci kër docteur même bu ko dara jatulee. Mhm. parce que ñàkk baa ngi fi leneen ak leneen a ngi Mhm. kon nag euh, doy Doye yi dañuy ubbi antenne bi ci 33 825 18 30 du ñàkk ñoo xam ne am nañu ay laaj yoo xam ne euh, dina jëm ci li nga jot a wax mooy mbirum xale yi nga xam ne dañuy xiiboon. Mhm. te moo tax saa su nekk bu ñu amee rendez-vous rek dañ leen di peese. Mhm. ñu bëgg xam critère xiiboon yooyu ci lan ngeen di jëfandikoo euh, pour wax ne kii dafa xiiboon est-ce que xiiboon kase ngeen di détecter wala di ngeen dem tam ba wax ci poids boo xam ne xëy na mu ngi ëpp loxo. ndax malnutrition euh, mën nañu xëy na ñaari boor la. Mhm. donc dañuy jéem a xool ndax am na auditeur bu nekk ci ligne ba pare woy ci waxtaan bi 33 825 18 30 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi lay ziar sëñ bi. soxna si na ngeen def. Euh, ñu ngi sant bu baax. maa yéen ci jàmm. ñu ngi si jàmm alhamdulilah. docteur ñoo ngi koy sant di ko gërëm li mu wax leer na nañu macha allah. Mhm. li ma bëggoon a mooy. waaw. Euh, dama am doom joo xamante ne war na am deux ans wala vingt six mois deux ans yu teg daal. Mhm. ndax janvier bi passé la am deux ans. Mhm. mais màggam dafa yéex lool lool dafa tuuti aussi. Mhm. allo. waaw booy ne màggam dafa yéex ci lan ngay sukkandiku. dafa tuuti quoi par rapport ak ñi nga xamante ne ñoom la juddoon doon ñëpp. ñoo ko ëpp. poids bi moo tuuti. moom dafa tuuti dafa tuuti. ñi nga mhm. xam ne moo leen mag sax ñooñu ñoo ko ëpp. Mhm. moo ngi dox nag moo ngi wër na macha allah moo ngi def léppam. moo mhm. ngi wax ay soxlaam ak trop. te nanguwut a lekk aussi. lekk moom ak ku ko rey la boole yemale. waaw euh, xëy na ma bàyyi la ak madame Ndoye mu laaj la xëy na yan xeetu lekk ngeen ko jox ay question yoo xam ne dina ko permettre mu mën la orienter. waaw waaw sëñ bi. waaw madame Ndoye Cheikh Diome la marché alise waa kay jërëjëf jonn na ngeen def lu ngi lay déglu aha kay Ndeye dama ne sama doom daal man dama seetlu ne moom lekk ak ku ko rey la boo yemale lekk waxu ci dara. Mhm. wër na nag macha allah amul benn jafe-jafe. Mhm. ngi dox di def ay soxlaam di wax ay soxlaam mais daal moom lekk la nanguwul dafa tuuti lool nag. Mhm. am na war na am deux ans yu teg ay deux mois trois mois yooyu. ok léegi monsieur Dione moom su ngeen di lekk peut-être bu ngeen di lekk en famille ci bool bi lay sukk di lekk walla lan lay def. day sukk ci bool bi mais lekk moom du ko def. ah rek. moom daal daay day ñamantu rek. ay lekk ah. suukar daal bëgg na ko. Ah. banaana pomme yooyu su ko weesoo moom lekk yi ñuy lekk nii naturellement moom bëggu ci waxu ci dara. Mhm. waaw waxu ci dara. mais jàmbatul dara lu koy metti wala dara. déedéet ah wax dëgg yàlla amul dara lu koy metti nii nii moom wax dëgg yàlla. waaw man li ma lay xalaat rek mooy nga dem ci poste de santé bi la gën a jege. waaw parce que sa sa doom jooju toll na aussi fi nga xamante ne war nañ ko jox yooyu nga xam ne mooy fer ñeent yeeg. war ko jox loolu nga xam ne mooy garabu saan. te soo demee ci poste de santé bi la gën a jege ñoom dinañ ko peese. xool selon âge bi mu am ak selon moom tolluwaayam maanaam taay bi mu am dinañ xool ba xam parce que am na xale yoo xam ne naturellement dañuy nekk ay xale yu tuuti. du doon ne dara daf leen dal mais quand même bu ñu demee kër docteur na sax kër sër ah. yóbbu ko fa ñu jox ko ay genre sunguf yooyu ñuy def ay mhm. ruy yooyu mhm. mais daal ah. taxut mu bëgg lekk ba léegi waaw euh, kër sër moom loolu boo gisee mu koy joxee day dimbali xale yooyu nga xamante ne aussi dañu xaw a xiibon mais xiibon bi méttiwul torop moom la ñuy wax malnutrition aiguë modérée boobu dañ lay jox ay xeetu euh, sunguf yoo xamante ne pour ñu mën ko ruy pour mu mm-hmm. jàppale xale bi parce que dafay am ay ferñeent yoo xam ne dina ko dimbali ci màggaayam léegi nag rendez-vous yi rek ngeen bañ di taayal taayal rek monsieur Jonn continuer rendez-vous yi foofu kër sër da ngeen di continuer rendez-vous yu Kër Sër parce que loolu ñoom xarañ nañ ci torop. jàppale xale yooyu nga xam ne ñoo dem Kër Sër moom ñaari deux mois trois mois yu ne ñu dem Kër Sër. mais moom poids am moo ma jaaxal dafa tuuti de trop. nga ne deux mois trois mois yu nekk ngeen di dem Kër Sër. waaw yaayam da koy yóbbu Kër Sër wala déet may. non est ce que rendez-vous yooyu sorewul. nee na est ce que sorewul. maa ngi sax fi kaw. nee na yegul fi ma wax sax moom. waaw. waa da ngeen di dellu rek ñoom dinañ xam. parce que ah. kër aussi boo fa demee dinañ waxtaan ak yow. peut-être li ci ah. nekk yëpp man mënuma ko xam parce que yoroo ah. li nga xamante ne mooy poids bi. ak tolluwaayu xale bi pour mun ci wax mais. soo delloo kër sër ñoom dinañ la mën a wax xale boobu peut-être lan moo ko dal te aussi ngeen bañ a tayal continuer rendez-vous yi ñu leen di jox jafe-jafe yu ngeen ci am aussi ngeen delluwaat ci ñoom. merci beaucoup docteur. Mhm. Euh, merci. jërëjëf jërëjëf euh, jom du ñàkk ñu dellu si waat ci lii nga xam ne xale yu bëri. Mhm. Euh, dañ koy dund seen waajur yi dañ koy jàmbat. Mhm. xale bu wër penk di dox soxla mais daal bool familial bugg ci dara ay lekkam ay lekkantoog yooyu la soxla. ñu bëgg xam aussi lu bëri lan moo koy waral dañuy seetaat beneen auditeur ci 33 825 18 30 asalaamaaleykum. waaleykum maa ngi lay ziar sëñ bi. soxna si ñu ngi leen di siyaar. ñu ngi delloo siyaar. yàgg déglu émission bi di ko rafetlu bu a baax. jërëjëf jërëjëf. région Thiès laa dëkk nag. Mm-hmm. waaye man dama mm-hmm. mm-hmm. def yenn saay rek lu mel ni soj moo koy dugg muy muy muy noy noy diis. wante bu amee ñaari fan rek nga gis baqate yi commencé génn mhm. mu daal cay jóge mais day def ñaari daal li mu koy dal dafa xaw day par weer daanaka daal mbaa weer ak nangam la koy faral di dal mais mhm. bu passé moom amatul benn problème mhm. waaw ma doon laaj nag parce maa ngi rafetlu seen émission bu baax nag di ñaan yàlla ngeen gudd fan te wér na ko ñun ñëpp amin amin moom mës nañ ko yóbbu ci sojam yooyu pour ñu xam lan la wala déet waaw man nag ñaari yoon laa ko sentiré bi ma paase moom doon naa doon naa dem docteur bi mais xam nga fan yi moom génn dañu yombul dara. moo tax mhm. ñun. Mhm. waaw loolu la rek. waaw. est-ce que da ngay nemmeeku aussi parfois occasion yi ci yan occasion la koy dal soj bi ci lan la koy dikkal. Ah, xam naa daal day jàkk baax rek mu mel ne xaw a fàttali muy di nooy nooy yu mais. après daal ay bakkatam lay mujj génn daal yu bari bu ko afee ñaari fan nag daal di wér laaj dem yoonam. d' accord incha allah euh, suñu invité dina ci jéem a indi orientation wax lu mu ci xalaat ak fan nga mën a dem. ngir loolu d' accord jërëjëf. mu nekk ku wootee Thiès dinañu dellu siwaat ci question am donc dañuy seetaan ndax am na beneen auditeur. Mhm. boo xam ne ba tey suñu thème intéressé na ko mu am ci laaj wala contribution ci 33 825 18 30. asalaamaaleykum maaleykum salaam. na ngeen def. ñu ngi sant bu baax. allo docteur allo médecin allo infirmier. Mhm. allo assistant social. waa kay Diop. <laughs> waaw. Ronald euh, euh, Liba lay dégg. maa ngi lay fay Diop. Euh, man je pensais aujourd'hui que paa bi ñooñu ko dugg. mais boo seetloo ba léegi bu ñu def parité. sax mhm. gaa yi respecté wu ko. doy na de. góor ji rek ñooy woote quoi. Mhm. des sax ñooy woote ku jigéen ki toog ci wet bi. waaw kële moom le premier. le premier appelant xam naa madame John dina ne moom laay waxal. <laughs> Uh-huh. Oh, non non on a entendu sa voix. Mm-hmm. alors bu toog buy buy questionné buy buy kii. Mm-hmm. mais madame Ndoye. waaw. xam naa yow xaw ma la de mais ku njaxlaf nga kàr kàr. Uh-huh. Mm-hmm. sant. ku bëgg sa liggéey nga. Uh-huh. parce que tu parles avec une passion. comme disait Hegel quoi. tout se fait dans la passion. comme disait Hegel. yor ji ko changé agent social agent. Euh, système social. assistance sociale. est-ce que weesuwu leen affaire bi loolu à a changé en Belgique et un peu partout parce que li ngeen di wax bu njëkk ba. ay mille neuf cent wala nangam nangam li ngeen doon liggéey ak ngeen la ko. c'est pourquoi les salis comme moi n'est-ce pas qui ont blanchi sur le harnais du syndicalisme war nañu seeraat appellation yi. parce que vous dépassez largement ce cadre de travail là. maintenant la première question pourquoi ngeen yemale euh, seet bi si juróomi at. pourquoi daf leen ko jaayaat évidemment euh, zéro euh, un mois ba cinq ans nga di def mais pourquoi nga yëbale ko cinq ans. parce que en fait am na ñu nekk mag mais ils sont mal nutris. Mhm. am na ay ponkal kaar kaar comme ni ñu koy waxee ci olof. da nga koy yow da nga dégg olof ba wax ko ci olof. Mhm. am na ay <laughs> am na ay ponkal yoo xam ne ils sont mal nutris ça aussi je pense que war ngeen yokkaat affaire bi mhm. pour xool muskala fi nga xam ne de nga maam ah. seen seen yaram xarñeen si waroon am yëpp ak suux yi waroon am yëpp ak doole ji waroon am yëpp amu ko. Mhm. alors pourquoi yéen ngeen yemale ko ju si si juróomi at. Mhm. deuxième question mhm. mooy visite yi ngeen di def. xam nga xale bu gudd rek dañ ko jox carnet de santé. déjà bi yaayam dem def di passé visite du dëgg. est-ce que carnet yooyu. di ngeen di seet ba xam ndax les femmes dañ ko toppatoo bu baax a baax a baax. parce que c'est comme l'impression or or lañu mën a or ak yooyu rek ñu denc ah. c'est c'est je m'excuse hein. bon ma mère ne faisait pas ça ma mère c'est très méthodique. bon évidemment on va dire que je vous tire le chapeau. mais moom dafa topp dafa taw ay doomam. man maay taaw te maa ngi nii kaar kaar alors est-ce que saa yu ñëwee di def visite di ngeen contrôler par exemple xale bi ngeen di mais aussi est-ce que da ngeen seet les anciens carnets wala fu bu ngeen amee su recueil. pour voir un peu si les enfants ont grandi de façon normale. Voilà tout ce que j'avais à demander. C'est des questions idiotes, mais c'est des questions qui me semblent importantes. Non, pas idiotes, questions yi am solo la. <laughs> am na solo lool am na solo lool. Ah, jërëjëf Diop. jërëjëf donc ñu seetaat beneen auditeur ci 33 825 18 30 bu ñëpp duggee ba pare madame Ndoye ma bàyyi la nga tontu leen. Mhm. Euh, indi leen ay éclairage wala orientation asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi lay ziar. El Hadj Touré Dakar Plateau. waa kay Touré. soxna Rosalie. ñu ngi lay dalal bu baax maa ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay fay. di mu ngi mm-hmm. di nuyu. mu ngi lay fay bu baax di kontaan lool lool lool ci émission bi macha allah. Mm-hmm. Euh, maa ngi nuyu bu baax kon ko deex kee a jàndu di ziar ñëpp ku nekk Sénégal bépp Sénégal rek maa ngi lay ziar di la ñaanal jàmm. amiin amiin bon man lu ma doon toog mooy. am na ay façon xale yoo xam ne léegi euh, parce que l'exigence dafa bëri daal l'exigence yi dafa bëri. Mm-hmm. caggante bi moo bare ci xale yi boo am nay xale yoo xam ne dañuy feebar au nga dem kër docteur. Mm-hmm. ngay dem di ko lijjanti leneen. Mm-hmm. parce man gis naa ci benn xale boo xam ni euh, Rosalie même bi de bokkul ci thème bi tam moo ko ko. ndeysaan euh, loxo bi tam au lieu nga yóbbu ko docteur ñu faj ko. ma dem ci maam mu ni ndeysaan loxo bi mu dee am problème. ba mm-hmm. ñu dagg ko xam nga loolu yëpp encore dafa dafa xaw a daw yaram. Mm-hmm. dafa xaw a càggante nga xam ni moom kenn ko kenn mënu ko kenn mënu koo xam. Mm-hmm. man daal lu may wax ci xale yi mooy ma aw ma wax dëgg yàlla ma xale bu tuuti boo nga xam ne dafa feebar wala ma ciy wax ni docteur ci feebar na wala lii moo ko jot mais képp ku yor xale. na nga ko toppatoo xale bi koy koy toppatoo ba mu màgg parce <laughs> que man dañ ma toppatoo ba mu màgg dama toppatoo samay doom ba ñu màgg man sama doom lépp too ko mbuusul dara rek boo ko yaayam fiwul tamit encore man damay yénn dum ci dum ci léegi-léegi dara avant virus bii ñëw avant virus bii ñëw mhm. lu wax yàlla moom ma seede avant virus bii ñëw man sama sama doom soit yooyu demee ci biir boo ñëwee balaa ngay laal ci dara da ngay raxas mhm. man noonu noonu noonu laa noonu la ma yàlla bindee noonu laa mel loolu la bëgg tamit encore yal na yàlla ñëpp am jàmm. amiin amiin yal na Sénégal lépp am jàmm. amiin képp ku wér yal na nga uh, continuer di wér. képp ku am feebar yal na yàlla yëkkati. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa jërëjëf. jërëjëf Touré madame Doy li mu wax uh, am na solo mhm. nee na xale faw ñu koy toppatoo mhm. uh, buñ ci yeggee ci moom ci laajam rek di nga dellu si ci lan mooy toppatoo xale mhm. naka lañ ko war a toppatoowee donc ñu jëlaat beneen auditeur asalaamaaleykum maaleykum salaam waaw maa ngi jijak mhm, ñu ngi lay nuyu. ça si jàmm alhamdulilah. waaw ñu ngi mhm. lay fay. waaw ah, man dama amoon benn kii man dama sama doom. Mhm. moom si hôtel bi bu dee dafa jël naan meew surtout meew pëndëx. bu jiitu ci biiram ak dafa nga wax en tout loo ko wax ba mu lekk. Mhm, maanaam bu bu bu naree ndékki bu naanee meew rek biir bi day fees. waaw. Mhm. biir bi day day ballon. day ballonné. voilà yi moom damay faj a tudd ci turu moom amul problème amul problème. voilà loolu moo tax surtout sax meew yi daal bu ko jëlee ko moom ndékki bi la mhm. naan moom bu xëy boole ci ndóog kese moom day def. leer Mm-hmm. d'accord nañ ci bàyyi xel jërëjëf jërëjëf ci jàkk Touré donc ñu seetaat yeneen soxna si. Eh euh, na ñu ngi sant yàlla. war naa participer ci waaw ñu ngi lay déglu noo tudd wala fooy wootee. waaw man la Fanta Thiam Badiane Gox mm-hmm. présidente Badiane Gox. ok Thiam ñu ngi lay déglu. Ah, jërëjëf. waaw muy Khady mm-hmm. ah, allah ku mën ku mën li def. dëgg la. ku tàggat ja euh, bàjjan yi mhm. ku mën a jël temps wam ndax ko mbirum Covid bi moo xew ku ci mën jël temps wam mhm. di ñu formé waaw ñun bàjjanu ko yi mhm. waaw wax wax ñu fi ñuy teg suñu tànk mesure barrière du jóg ci di wax ak teg ñun tey bu doon tey loo xamante ne tey bàjjani dañuy ñëw foofu tey kon tey kenn du xaj su defeen man nag depuis ce matin dama feebar léegi dama tàpp mais dama ne dinaa participer pour wan leen ni rek ku ku mët li muy doon macha allah moo toog si dem rek. jërëjëf. waaw kontaan naa trop. Mhm. bu mhm. waaw damay participer bu baax a baax a baax. Mhm. mais sama yaram moo naqare. yàlla na nga jóg ak jàmm. jàmm amiin yaa rabbal mais yoon yemul ci benn foog bàjjen yi ñëw tamit. waaw waaw parce que bàjjen yi ñu ngi def liggéey bu am solo ci askan wi surtout ci. sensibilisation Covid ci jigéen ñi nga xam ne war nañu dem euh, topp seen visite yi ci jamono ji nga xam ne ñu bëri dañuy tànkam lu wala soofantal mbirum kër docteur mhm. kon na euh, foog ngeen ñëw foog ngeen ñëw ñu waxtaan ci tey rek bi ma demee hôpital Fann tey rek maa ngi am ñoo xamante ne dañuy wax ne dañuy am rendez-vous dañuy ragal maa mhm. ngi leen da ngeen di lor seen bopp yàlla ku mu ko war a jox dala koy jox waaye mhm. ku faju wér parce que suñu docteur yaa ngi fi journaliste yaa fi fi ñu toll nii Covid bi ku ne amul wala ku ne xamuñ ci dara da ngaa bëggul xam. Mhm. wala da ngaa bëggul dégg wala da bëggul suivre euh, mesure barrière. Mhm. waaw ku am doomam na yóbbu ku sa doom war a ñàkku sa doom ñàkku. Mhm. ku nekk en état demal ku accouché demal. waaw ñu am rendez-vous ci yeneen feebar yu dul loolu nañu dem diabétique yi bu kenn bàyyi dara. parce que toog ci kër gi dafa yokk feebar. day yokk feebar kon nag. Euh, mention spéciale à Xari Ndoye. jërëjëf. maa ngi lay sant di la gërëm ma chère. merci Badiane merci. ok merci beaucoup. jërëjëf Thiam. Mhm. Mhm. kon ñu jëlaat euh, beneen euh, auditeur ci cinq dix 18 30 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Euh, maa ngi lay ziar. maa ngi delloo soxna Rosalie. Thiam. waaw jërëm. Mhm. allo. waaw dafa mel ni euh, rëcc na ñu bàyyi ko mu jéem a duggaat ci vingt cinq 825 18 30 asalaamaaleykum. waaw ba tey problème la ñu bàyyi ko mu mayaat ko chance euh, madame Ndoye balaa ñuy ñëw ci question yi nga xam ne noté nañ ko dinañ ci dellu si ku ci nekk sa préoccupation xool euh, naka lañ lay jàppalee asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. kay dafa mel ni dañ ñu daggoon de. waaw dañu daggoon dañu daggoon xam naa réseau bi la rek loolu la ñu ngi lay déglu. waaw ñu wax rek di gërëm toujours Sud FM. Mhm. l'ordre national des médecins ak de d'Afrique. jërëjëf. waaw di gërëm sa invité boobu. madame Ndoye. waaw li ñuy wax ci xale am na njëriñ trop. Mhm. parce que xale mooy magu suba. Mhm. suñ ko defarul ci bas âge bi rek. bu yeggee mag luñ ko soxlaa duñ ko am. waaw yaay yi nag yaay yi lañ war a ñaax si depuis sànq ba léegi góor ñi rek ay woote. mu mel ne yaay international xam naa ne ñu ngi si télénovela si toog <laughs> waaw c'est sûr hmm? mm-hmm. waaw góor nañuy góorgóorlu seetu seen doom di xool seen doom di topp toppatoo mm-hmm. ah, doom bu xasee ba fer doom bu xasee ba fer foofu le suivi bi gën a am na importance mm-hmm. man ñu ma dëkkal ñëpp su ma gisee ñi dem si boutique bi jëndal seen doomu boisson yooyu bëgguma wax seen tur parce que ay marque la ah, dama leen wax toujours ma leen lii lii de fruit dama jënd orange wala jënd pamplemousse kii nga pressé ko defal ko sa doom moo gën nga ko mhm, jëndal mhm, mhm. bu doon jus de fruit jus d'orange yooyu kii du jar cent franc wala deux cent hmm? surtout surtout produit yooyu man produit yooyu laa gën a bañ hmm? nañu toppatoo xale yi di kii te te moytu tamit xale xale boo xam ne dafa am mal malnutrition est-ce que est-ce que du am danger ak Covid bi parce que comme comme Covid bi comme mag yi bu ñu ñàkkee doole xiiboo ci xale bu ñàkk doole tamit est-ce que du am danger loolu laa bëgg laaj daal. Mhm. waaw mhm. jërëjëf maa ngi leen gërëm di leen sant. jërëjëf Thiam. Mhm. kon nag euh, bu amul benn auditeur madame Doy dama lay bàyyi nga tontu ñu dellu si waat ci laaju Cheikh Diom nee na doomam bu ab ñaari at ak euh, ñaari weer. Euh, moom màggam dafa yéex. Mhm. poids bi dafa ndaw lool mhm. xale bi nag macha allah yëngu na mu ngi foo. Mhm. mais lekk daal bëgg ko. mais nee na dafa bëgg ay ñam yu am suukar. te yi mu lim sax daanaka ay fruits la. bonul ndax nee na bëgg na ay banaana ay pomme. gannaaw euh, oriente nga ko comme nee na mu ngi doon dem kër sœur. nga ne ko mu gën a topp rendez-vous yi gën fa delluwaat. Euh, ndax mën nañu xam souvent. parce que dafa bari. Mhm. da ngay dégg parent bu ne sama doom daal du lekk. dafa mhm. mel ni âge bi la des fois mhm. ñu soofantal ko ne la ah âge bi la ñoom ñëpp la. jarul def dara. lan moo si sa sa xalaat. waaw loolu li si sama xalaat damay waxaat monsieur Dione nekk loolu mun na nekk retard de croissance. parce que xale bi su fekkee ne que ni mu war a màggee ak âge am tolloowul mun nañu wax ne xale bi dafa def loolu nga xam dafa tardé maanaam ci màgg gi mu waroon màgg mun na nekk aussi insuffisance pondérale. li mu waroon tollu ci yaram par rapport ak âge ci ci buñ ko peesee tolluwu ni solo âge yooyu yëpp kër docteur bu fa demee am nañ ci ay pexe te xam naa ne kër sœur par rapport ak jël en charge loolu farlu nañ ci bu baax mhm, te am na ñu fay dem aussi di ci am loo xamante ne mooy ay résultats mhm. beneen bi may waxaat par rapport ak xale yi man damay wax ne toujours lenn la aussi ci tàmmal bi la parce que am na ci parent yoo xamante ne dañu tàmm sa doom fu muy toll ci âge bi muy ràññee yenn lekk yi ngay farataal ñamu suukar ñamu lii loo xamante ne ci loolu rek lay penché wu alors que dañuy wax ne xale bi soo amee juróom benn weer déjà nga commencé def ruy su gënee dëgër tuuti nga commencé di seppi ñoom euh, euh, pataas yi mu saf mhm. noonu ak pombiteer ci loolu nga xamante ne moom lañ togg te saful torop kaan yi nga toj ko daal di ko jox sa doom day tax sa doom ëllëg day gaaw tàmm li nga xam ne mooy plat principal bi ñuy lekk mhm. su ko defee nag lekk bi dina dina dina dina dina dina neex ci moom parce que tàmm na ko te aussi dina permettre aussi li nga xam ne moom la ci soxla ci wàllu màggaay yooyu mais booy seetlu yi ñuy soxla di jënd ci boutique yi walla dara am na ci yoo xamante ne amul benn euh, njëriñ par rapport ak lu mu war a apporter en terme de nutriments ferñeent ci xale bi donc loolu également il faut ñu attirer ci attention parents yi. Mhm. te wax leen également su ngeen di dem kër docteur bu leen xaddi peut-être am na ci yoo xamante ne rendez-vous yi dina yàgg mais bu yàggee li ñuy wax naa au bout de l'effort di nga gis les résultat te soo amee jafe-jafe aussi demal nga gis ki nga xamante ne moo moo lay faj nga ne ko man de damaa gis ne yàgg naa fi ñëw te amul résultat mu expliquer la. donc loolu également maa ngi koy dégtal ki nga xamante ne mooy euh, monsieur Diom par rapport ak doomam boobu. Mhm. parce que comme amuñu les tenants et les kii mënuñu ci sori par rapport ak xale boobu lan moo ko dal. Mhm. mais wax naa ko ne mën na nekk euh, insuffisance pondérale wala retard de croissance wala gi xale bi am beneen feebar en tout cas. na ko yóbbu ko docteur te mu leen di poser aussi question bu comprendre wala lu amee lu ko lënt ci lay ñu defal doomam. Mhm. Euh, ci beneen mbir soxal toujours xale boo xam ne euh, poids am dafa ndaw. Mhm. te jàmbatul benn métit mhm. est-ce que comme ni ñu koy defee sànq maa la koy junj ne la des fois ñu ne la ak ah, jarul kër dem docteur xale yëpp a noonu. est-ce que dafa am danger ci xale bu toll ci stade boobu ci situation boobu. du am appétit du lekk lu du lekkant ba pare tuuti nga ba ko est-ce que mën na ko jural jural leneen. ëllëg waaw man damay wax ne tout le temps xale bu dul lekk mun na ko jural dara parce que dañuy wax ne problème nutritionnel yooyu ëllëg ci biir mun na ko andil yenn problème yu sew sewaan yenn feebar parce que dañuy wax ne saa yu lekku xale bi gàllankoore ci ferñeent yu ci war a daje ba xale boobu màggaayam jaar yoon su amee lu ko fanq wala lu ci lënt rekk mën na andi xale bi ay feebar yu sew sewaan donc man dama naa saa yu gisee lu mel noonu yóbbul kër docteur ñu évaluer xool xale bi lan moo tax amul appétit su fekkee ne dara jotu ko suñ ko waree jox ay vitamine pour xale bi euh, kii sawar ci lekk bi wala dara wala suñ la mënee xettal yenn xettal ci yenn lekk yoo xamante ne xale bi su ko jëlee mun na tax mu mu mu jël poids aussi nga mun ko def pour sa doom man daal je crois que dem seeti kër docteur ba ñu ne la gisuñu dara que xale bi dafa tuuti da nature man moo ma gën a dal sama xel que nga toog sa kër rek. te xamoo lan moo ko dal. Mhm. waaw ñu ñëw ci auditeur bi wootee Thiès. Mhm. nee na dafa nekk ak ab xale boo xam ne euh, xiiboonul mhm. daa. mais nee na soj da koo yomb. te léeg-léeg bu ci bu ko dikkalee sax nooy gi dafay métti. te bakkan gi tamit day xeli. nee na daanaka weer wu ne la koy dal. donc kii situation yow lan nga koy proposer comme solution. dem kër docteur dem kër docteur. man dama naa xale su feebaree yóbbu ko docteur te socc moom feebar la. Mhm. surtout ak nooy bu bu metti bu metti te ku ne xam ne ne xale su bekken bi fàttee jooy rek lay def donc xale yi suñ sojee dañuy jooy te defe naa ne loolu sax neexul ci waajur bi. Mhm. mu gis doom ji du souffrir noonu. man je crois que daf ko war a yóbbu ko docteur su yóbbee kër docteur aussi dinañ seet lan moo dal xale bi. Mhm. mais toog kër ga rek parce que ni ma déggee ci suuf mu ngi wax ne. jamono ji eh, sawaruñu torop di dem kër docteur loolu aussi dafa may tax ma gën a ñaaxaat waajur yi que nañu topp seen rendez-vous yi kër docteur bu dee feebar bi nga xam ne moo fi nekk mooy feebaru mbas bi moo tax ñuy ragal di yóbbu seen doom yi nañ xam ne kër docteur aussi jël nañ ay matukaay parce que loolu nga xamante ne mooy prévention par rapport aux infection contrôle de l'infection parce que ñaanuñu yàlla kenn ñëw kër docteur di fa jëlee dara ñaanuñu yàlla aussi kenn di ko am ni kër docteur ba tax na bu ñu ñëwee ci buntu hôpital yi gis ngeen système ba fa nekk triage ba fa nekk dinañ jël température xool nit ki bu duggee aussi solo signes yi muy manifester dinañ seet nañ lañ koy euh, orienté ba nga xamante ne du lor ñeneen ñi. loolu defe naa ne war na dal xelu nit ñi ñu mën a ñëw kër docteur pour xool seen yaram. mais toog kër ga rek jëloo garab ba yëf yi paase nga toogaat mun na ñëw gën a metti donc dama leen di xirtal rek ñu topp seen rendez-vous yi nga xam ne moom lañ leen jox ku ci gis lu la jaaxal ci sa yaram ku tawat mu teel a dem kër docteur. Mm-hmm. ba ñu wax la lan moo ko dal. Euh, mais lii euh, maanaam soj bu bëri ci xale yi. <laughs> Euh, lan la ñu mën a njottu ne xëy na moo ko war a indi bu weesoo mbirum allergique. waaw mais xam nga ñu ngi wax li ñuy wax infection respiratoire aiguë. Mhm. muy IRA mu nekk feebar yoo xamante ne xeetu soj la day farataal di dal xale yi nga am ne ju amaguñu juróomi at te dina farataal aussi di leen indil ay jafe-jafe. loolu tax na il faut parents yi di yóbbu seen doom yi kër docteur ñu ñu xool leen ba xam xale boobu ndax loolu moo ko dal xale boobu ndax bronchite wala leneen parce que xeetu feebar yi nga xamante ne day jàpp xëtër dënn wala muy andi soj wala dara bëri na. donc su demee kër docteur si la médecin bi di mën a xam ne kii lii moo ko dal wala lele moo ko dal mais tant que yaa ngi dem kër toog kër ga rek naa soj la soj la alors que xale bi même pour mu yi sax dafay mel ni kuy dabee noyyi gi loolu xam nga lu doy waar la donc monsieur John maa ngi lay ñaan rek sa doom jooju nga yóbbu ko kër mhm. docteur bi la gën a jege. du joor na sax kii woote Thiès. Euh, kii woote pour ñu laaj ko waaw. Mhm. pour ñu ñu xool ba xam lan moo ko dal buñ ne soj la rek toog kër ga parce que ñu ngi xeeb yenn feebar yoo xamante ne mën na andi loraange wala mën na nekk fekk un dessous am na leneen loo xam ne de plus grave mu ngi ci suuf. Mhm. donc na yóbbu doom ji kër docteur ñu xool ba xam lan moo ko dal. waaw euh, ñu ñëw ci Diop ak euh, euh, ñetti laajam <laughs> moom benn bi sax dafa doon laaj ndax statut assistance sociale kenn waru ko. Euh, soppi ndax bu ñu xoolee ampleur liggéey bi ngeen di def. dama mhm. lay bàyyi rek parenthèse la. Mhm. bokkul ci thème bi mais comme yow yaay assistante sociale bi tam mën nañu jàpp ni lépp ci la loo koy tontu. <laughs> Diop li ma koy wax nee naa ko ñu ngi jouer suñu role en tant que assistante sociale parce que ci ay bërëbu fajukaay la ñu nekk di jànkonteeg ñoo xam ne seen loxo jotul seen gannaaw ñuy ñëw di faju ci loo xamante ne nit ñu ko jàngale ci jàppale ak taxaw bi ñu leen war a taxaw accompagnement ñu ngi koy def. bërëbu fajukaay lañ nekk aussi nit ñi di feebar muy jaxase seen xel am nu mu leen di def ñu di leen delloose loolu aussi liggéeyu assistante sociale la ñu ngi ko mais au delà de loolu également ñun aussi dañuy tàggat ci waxtaan ak population yi di naxtaan ak ñoom di leen sensibiliser ci wàllu feebar yi donc defe naa loolu moo tax. lu ci bari boo gisee ci yenn euh, centre de santé yi wala district yi euh, euh, assistant sociaux yi la ñuy jox loolu ñuy wax éducation pour la santé am na ñeneen nag ñuy jouer rôle boobu di nga gis des fois agent d'hygiène bu ko jouer wala infirmier bu ko jouer mais assistante sociale yi aussi dañ leen di jox loolu parce que loolu ñuy wax information éducation communication am na lu ñu leen ciy tàggat tuuti ca école bañ leen jàngale mm-hmm. ba tax na bu ñu ñëwee peut-être wax ji ak yooyu day yomb ci ñoom pour ñu mën a naxtaan ak population yooyu pour jàllale yenn message yi. Mhm. Mhm. Euh, beneen laajam mooy du tax lu bëri ci programme de routine yi. Mhm. Euh, juróomi at la yem. waaw parce que xale yooyu ñoo néew doole xale yi amagul juróomi at dañoo néew doole neew doole xëy na mag dina am loolu ñuy wax malnutrition parce que am na yenn euh, feebar yoo xamante ne tey soo ko tegee fii si la dina ci am ñoo xamante ne dañuy dem ba am lompoñ ci wàllu lekk. mu feebar boobu dal leen andil leen lompoñ ci wàllu lekk euh, mag yooyu également ci seen biir prise en charge feebar loolu jël nañ ko en compte xale yi aussi comme li ma la wax rek dañoo nekk ñu néew doole programme bi ci ñoom la jublu mais programme nutrition yemul rek ci xale yi parce que booy xool femme allaitante femme enceinte yépp dañuy xool xal ndax euh, lompoñuñu ndax xiibanuñu parce que ki nga xamante ne aussi dafa ëmb lu ñuy ñaan yàlla bu ñëwee mu ànd ak wér aussi su nee mën na lor li nga xamante ne moom la ëmb donc ñooñu aussi ñu ngi leen di jël en charge au-delà en enceinte même ñi nga xamante ne ay adolescent lañ maanaam njagamaar lañ euh, wala waxambaane ak ñi nga xamante ne ay personnes âgées lañ aussi seen wàllu lekk ak yooyu ci programme nutrition aussi am na ci wàll boo xamante ne ci ñoom la jublu. wax na it ci mbirum carnet yi ndax est que di ngeen di saytu ndax wayjuru tout tànk yi ñoom dinañu toppatoo seen carnet yi bu baax ndax di ngeen def recueil pour xool ndax xale yi nga xam ne weesu nañu juróomi at ñoom euh, seen màggaay ni ngeen ko nammee woon noonee la demee wala déet. waaw carnet bi dañ ciy gën di wax parce que carnet bi ñun moom la ñuy tuddee carte d'identité xale bi. <laughs> saa yooyu ñëw kër docteur xale bi dara jot ko ak dara ñàkk ko bañ jot même su ñëwee pour peese wala mu ñëw pour ñàkku wala mu ñëw dafa feebar carnet de santé boobu la ñuy andi parce que carnet de santé bi ñun mooy suñu repère. tey xale bi nga xam ne dañ koo war a euh, defal vitamine A ci carnet bi la ñuy xool bi mu mujjee def vitamine A kañ la. su dee wàllu ñàkk suñuy xool xale bi parce que tey su feebaree dinañ xool li ñu jëkk xool mooy ndax yaay ji topp na ñàkk yi te ci carnet boobu la ñuy xam ndax xale bi topp na ñàkk wala déet te yàlla dafa def jamono yi ji euh, ministère de la santé dafa génn ay carnet de santé yoo xamante ne moom la ñuy joxe ci bërëbu fajukaay yépp ku amoon bu yàgg ba sax soo ñëwee dañ looy dañ lay koy changer te carnet de santé boobu xale bi mun na ko téye ba ker ba muy nekk waxambaane donc lépp ngi ci non seulement euh, li nga xam ne moom lañ ko war a defal mais am na ay message yu am solo ci wàllu wér-gi-yaram selon yi nga xamante ne aussi dañ ko koy defal loolu yépp ngi ci ba nga xam ne waajur yi mën nañ ko di ko xool di ko ubbi dinañ ci am information yu bari ci li nga xam ne mooy seen wér-gu-yaramu doom mhm. donc dañ leen di euh, xeftal rek ñu koy téye bu baax Euh, ñu ñëw ci euh, Touré euh, wootee Dakar Plateau. Uh-huh. moom lu mu bëggoon daal ci wax ko ci wàllu contribution mooy dañoo war di toppatoo xale yi. mu ni uh-huh. eh, expression bu am solo. Uh-huh. waaye xëy na toppatoo dafa am lépp lu mu ëmb. ma bëggoon rek nga dellu si ci madame Ndoye. waaw monsieur Touré moomu ñun dañuy koy féliciter rek parce que defe naa li mu wax ñun loolu lañ bëgg que parents yi gën a toppatoo seen doom yi parce que toppatoo bi aussi bu ñuy wax. Euh, bu wér-gu-yaram bi sooxee ku ne xam ne ne xale boobu màggaayam dina euh, xaw a sooxe donc li ñuy ñaan waajur yi rek mooy ne que seen doom ñu topp loolu nga xamante ne mooy rendez-vous yi ci kër docteur parce que loolu ci toppatoo bi la bokk parce que xale bi du solal yére jox lekk walla dara mais aussi su fekkee dafa am Euh, tawat boo xam ne mu ngi ci moom war nga ko yóbbu ko docteur xale bi su fekkee ne aussi am na ay atam fu mu tollu surtout amagul juróomi at am na ay wisit yoo xam ne war na ko def kër docteur am na ay ñaq yoo xamante ne war na ko def kër docteur donc loolu yépp ci toppatoo bi la te defe naa ne wérgu yaram lu am solo la ci ci ci ci suñu doom yi lu am solo la ci askan bi defe naa ne foofu aussi parents yi dinañ ci gën a jàpp pour toppatoo loolu nga xamante ne mooy seen wérgu yaramu doom. Mm-hmm. par rapport ak visite yeeg rendez-vous yi nga xam ne war nañ ko topp muy. papa ji ak yaay ji. mais li ñuy gis nag. Uh-huh. madame doy mooy euh, toppatoo boobu dafa mel ni ci euh, bu euh, PV e bi jeexee rek fa la yem. Uh-huh. maanaam ñàkk yi buñ ko yemalee ci 18 mois xawma ma côté yooyu. Uh-huh. rek dafa mel ni daal dañ leen ni xale yi bu ñu demati kër docteur wala bu ñu demati ci post de santé ba dafa mel ni tam problème de communication la. parce que waroon na am ay visite de routine comme ni nga ko waxee xale dafa néew doole. donc du ko ñàkk yi dafa jeex ñàkk yi muy def. ca poste de santé ba wala centre de santé bi dafa jeex rek waratul dem ñu saytu yaramam xool màggaayam te loolu euh, est-ce que tamit ñu ngi ciy communiquer bu baax. waaw loolu ñu ngi ciy communauté ñu ngi ciy communiquer parce que euh, ñun def nañ jàngat boobu seetlu nañ ne xale yi ñu man duma wax sax ne bu ñàkk bi jeexee am na ci xale yoo xam ne bu ñàkku ñetti weer ak genn wàll bi suñ ko defee pour ñu ñëwaat kër docteur problème la. te ñàkk biy ñëwaat juróom-ñeenti weer la mooy ñàkku ngas bi. ngas mhm. ak feebaru ngàccatit muy rougeole rubéole ak loolu nga xamante ne mooy fièvre jaune xale bi yaayam du ko anniwaat am na ci xale yoo xam ni il faut nga def li ñuy wax descendre sur le terrain maanaam dem def ay stratégie yoo xamante ne déplacé jóge poste de santé bi dem ci quartier yi ci ngay gis xale boo xamante ne ba mu gëjee ñëw mooy dernier ñàkk bi série 3 bi nga xamante ne ci ñetti weer ak genn wàll la ko defoon. donc loolu dañ ciy ñaaxaat waajur yi wax leen ne en dehors ñàkk bi am na ay rendez-vous joxe vitamine A joxe garabu saan peese xale bi peese boobu buñ ko xeeb. peese boobu ak euh, toise xale bi ak xool xale bi màggayam ndax jaar na lu am solo la parce que moo ñuy permettre ñu mën a xam xale bi dafa xiiban wala xiibanul parce que suñu bàyyee ci kër gi noonu rek day xëy benn jour rek dara daaneel ko ñu ne ah doom ji dafa feebar fekk li mu waroon respecté yooyu yëpp respecté wu ko mm-hmm. donc loolu ñu ngi ciy woo waajur yëpp di leen ci gën a ñaaxaat Euh, Djidiack Touré nee na dafa nekk ak benn xale ba nga xam ne moom euh, bu xëyee ndekkee meewu pëndax mhm. maanaam biir bi dafay ballonné mhm. day mel ni dootul mënati lekk dara mais bu naanee beneen xeetu meew mhm. macha allah du am problème dina mën a àggali ndekkeem lan nga koy wax ah xanaa jox ko beneen meew bi nga xam ne du ko def dara parce que ku sañoon aussi xale bi su xëyee nga jox ko lu tàngal biiram mu ndekki ba suur su fekkee day jàngi lekkool aussi su demee liñ koy wax mën a dugg ci boppam parce que aussi loolu dafa am solo gis nga ne xale bi loolu jigu ko peut-être su ko lekkee am na lu mu koy def aussi il faut nga arrêter mais également mun na dem aussi xool ba xam. Mhm. parce que ballonnement bi mu wax aussi man damay wax ne nit ki lu mu gis ci yaramam te daaw ko ci gis rek te mhm. bokk ci rek dafa war a dem ca ko ci ëpp xam-xam mu xool ba xam loolu la. Mhm. ci ay xeetu nutritionniste ak yooyu ba xam ndax du intolérance ak yooyu. waaw wala kër docteur sax parce que le fait mu ngi ballonné mu dem xool. lan moo ko waral lan moo waral ballonnement bu. su dee nekk xale bi aussi waaw. ndax amul lenn loo xamante ne day bañ. Mhm. parce que am na ñoo xamante ne dañuy am yenn jàngooro yoo xam ne di nga gis koo xam ne tey su lekkoon crevette nga gis mu def ko allergie boo xam ne bu doy waar la nga gis koo xam ne tey su lekkoon oignon mu am lu mu ko defal donc damay wax ne rek na dem ñu xool ba xam. ndax xale bi amul jafe-jafe bu tax muy def loolu. Mhm. ñàkkul aussi euh, mën na am ñeneen ñu ko ci jàppale comme ni nga wax nutritionniste ak lu nekk ngi fi pour ñu jàppale ko mais di nit kiy def mu jik ko daal na ci mhm. continuer. Mhm. te loo gis te bokkul ci sa yaram. danga war a dem kër docteur ñu xam lan la. ñu xam lan la waaw euh, ñu ñëw ci euh, li nga xam ne moom mooy. Euh, question wu Thiam bu Malicounda dañuy mm-hmm. remercier Badiane Fanta Thiam tamit ci contribution bi mu def mm-hmm. ak encouragement yi muy def jëmale ci sa liggéey mm-hmm. ma koy fàttali rekk ne Badianu gox yi tamit am nañu place ci allo docteur ndax ñu ngi def liggéey bu am solo euh, Thiam bu Malicounda moom nee na dañu war di sensibiliser yaay yi comme ni nga ko waxee sànq parce que ñoom ñooy war a topp gën a toppatoo xale yi dafa mel ni ñu nag xale yi bu ñu leen feralee ba pare rek dañ leen di bàyyi ak ñoom comme si jëm nañu mag. Mhm. Euh, li mu bëggoon laaj mooy ndax euh, xale yi nga xam ne dañoo xiiboon ndax bés bu leen Covid dalee du leen indil jafe-jafe naam day fekk ñu ñu ñu loof ñu ñu ñàkk doole. Mhm. donc par rapport ak Covid bi seetlu bi ñu ci seetlu ñun damay wax ne ñun ci district yi nga xam ne ñoo gën a laale ak mbas bi fii ci ndakaaru lañ bokk ndaxte cas yiñ ci am romb na ñetti junne jëm kaw ci fi nga xamante ne mooy district sanitaire Dakar Sud. donc li ñuy wax par rapport ak xale yi barewuñu ay xale yoo xamante ne loolu nga xamante ne mooy mbas bi laal na leen. Mhm. parce que boo seetloo euh, du ma ne du dal xale mais xale yi mu dal néew na. par rapport ak malnutrition nag ku ne xam ne ne euh, lompoñ dina ci am ci wàllu wér-gu-yaram te nee nañ kat ñi nga xamante ne ñoo am yenn feebar yi nga xam day wàññi wàññite seen yaram mën na am bu Covid bi ñëwee. Euh, mën na am bu Covid bi ñëwee. Euh, mën na andi lu gën a taral feebar bi wala mu andi leen ay euh, jiqi jaax parce que feebar bi aussi dañuy wax ne toujours ci jàng bi lañ nekk lu bees lu dal la loo xamante ne ñi ci gëstu ñu ngi ciy gëstu mais gis nañ ne ñi am yeneen tawat daal mu nekk ay maladie chronique ñooñu la feebar bi gën a sonal. Mhm. mais quant à xale yi daal ñii ci Covid bi dal barewul noonu. te euh, coono coono biñ ciy yëg par rapport ak li ci mag yi personnes age yi ak yooyu ñoom euh, dalu leen. Mm-hmm. balaa ñuy jox waa service commercial seen euh, temps pour ñu jàllale publicité euh, Thiam wax ne ci wàllu grignotage maanaam xale yi nga xam ne li ñuy lekk la presque ca boutique ba lañ koy jëndee est-ce que loolu tamit du favoriser xale ba dem ba bañ li nga xam ne moom la ñuy lekk ci bool bi walla sax heure lekk bu jotee fekk na lekkantu na. ba ba suur. te xëy na li mu lekk sax du ko jox ferñeent du ko yokkal dara. waaw loolu moo tax nee naa la lépp ci tàmm bala rek. xale bi bés booy commencé di dugal yeneen ñam da nga koy xirtal ci li nga xam ne mooy plat principal bi parce que loolu aussi mooy tax xale bi ëllëg ci biir loolu mu mën ko tàmm ba bu jotee rek mu mën cee jublu lekk grignoter am na ñoo xamante ne loolu rek la ñuy def te defe naa ne loolu xale yi koy def yëpp gis nañ ne li ñuy grignoter nekkul loo xam ne am na ferñeent yu am solo pour seen euh, màggaay donc xale yooyu loo leen gis aussi seen màggaay dina am lu ci sooxee donc loolu parent yi lañ ciy appeler rek à que ñu gën a tàmmal seen doom li nga xamante ne moom la ñuy lekk muy nekk loo xamante ne lu am njëriñ ci ñoom la te ñu leen koy tàmmal dès le bas parce que xale bi soo ko tàmbalee su ne nii rek nga jëndali ko dara ci boutique ba wala nga jëndali ko boisson sucrée wala dara mën na ko andil jafe. <laughs> waaw ñu wéy ci waxtaan bi euh, madame Doy comme Euh, ndax mbirum couvre-feu bi euh, yaa ngi ma doon xamal ni du ñu mën a egg ba vingt heures trente donc ci kanam fekk ay simili faw ñu yemale ko fa mhm. euh, sànq wax nañu ci malnutrition wax ci supplémentation vitamine A mhm. mbirum déparasitage aussi mu bokk ci seen ay activité de routine mhm. lan moo tax waaw déparasitage dafa nekk loo xamante ne lu baax la parce que ku ne xam ne ne saan baaxul ci xale mën na tax xale bi am loolu nga xamante ne mooy anémie maanaam euh, am loolu nga xamante ne mooy anémie dina andi aussi xale bi màggaayam xaw a sooxe xale bi tayal surtout bu nekkee xale boo xamante ne mu ngi commencé dal école ñaan nga yàlla xale bi xirtu uh, ci njàng mi mu xarañ ci donc dinay tax muy nelaw tayal donc saan ku ne xam ne ne baaxul ci xale day gàllankoor màggaayam ba tax na xale bi su amee at dañ koy commencé jox loolu nga xam ne mooy garabu saan donc albendazole la wala mebendazole moom lañ koy jox uh, bu ko jëlee juróom benn weer yu nekk la koy jël ba ker ba muy am juróomi at pour mu dimbali ko ci loolu nga xamante ne mooy saan yi nga xam ne dafay farataal di leen di leen dee dal. Mm-hmm. Euh, loolu lépp mu nekk ay activités yoo xam ne def ngeen ko ci campagne bi ngeen génn. Mm-hmm. donc ma bëggoon rek nga dellu siwaat ci campagne bi. xool mm-hmm. pour ñun ñi xam. porté campagne bi. lan ngeen ci doon séentu seen cible ñan la woon ñaata xale ngeen ci séntu woon li ngeen ci dab ci mbëbët waaye tamit rëkk-rëkk yi jafe-jafe yi nga xam ne moom ngeen jànkonteel te mu war a nekk loo xam ne da ngeen ci war a euh, sukkandiku ngir beneen yoon mu gën a antu. Mm-hmm. waaw campagne bi nee naa la euh, du 8 au 13 lañ ko organisé woon mooy ay bés bee ñu génn ci région de Dakar bi yëpp lañ ko organisé woon district bu dakaar yëpp la concerné woon mais suñu duggee ci district yi ku ne xam ne ne district yi dafa am ay poste ak ay centre de santé district bu ci nekk Euh, ñetti structure sanitaire la concerné woon maanaam ñetti zone soo ñëwee fi nga xamante ne mooy district sanitaire Dakar Sud donc zone Médina moo conserné woon pour campagne bi parce que centre de santé Cheikh Ahmadou Bamba bi moo doon def foofu soo demee fi nga xam ne mooy Fass aussi y a le poste de santé de HLM Fass nga dem aussi zone Colobane centre de santé Colobane donc ñetti structure yooyu ñoo doon wéyal loolu nga xam ne mooy campagne bi nga xam ne dañ ci àndoon ak euh, direction de la santé de la mère et de l'enfant mais également ci taxawaayu euh, région médical de Dakar ak équipe région yépp ñoo ñu jàppale woon ci loolu nga xam ne mooy campagne campagne bi nag euh, bu dee district sud ñun waroon nañ ci jot lu toll ni 16872 euh, enfants waroon nañ leen dépister parce que dépistage yu malnutrition moom lañ waroon def mais ñun dañ gis ne par rapport ak jafe-jafe yi bi nga xamante ne am nañ ko ci Covid bi ñu seetlu ne ñit ñi rendez-vous yi ñit ñi toppatuñ ko noonu ñun dañu ne Euh, au laa loolu nga xamante ne mooy saytu xale bi ndax xiiban na wala déet nañ ci boolewaale xale yi nga xamante ne waroon nañ jël vitamine A war a waroon nañ leen déparasiter te ñu waroon ñëw rendez-vous ñëwuñu ko ñu dabee leen ci population bi donc loolu lañ ci defaale xoolaale également comme booy def euh, vitamine A ak loolu nga xam ne mooy garabu saan dangay ngay xool carnet yi ñu xoolaale aussi xale yi nga xamante ne aussi dañoo raté seen rendez-vous ñàkk am na ñu waroon jël ay ñàkk raté ko ñoo xamante ne dañu jëloon série 1 lu demee ni loolu nga xam ne mooy ñàkk bi nga xamante ne mooy aar xale yu jigéen yi ci canceru kol euh, buntu butitu njurukaay donc xale yooyu dañ ci am ñu jëloon benn dose bi waroon dellu sewaat bu deuxième dose bi donc xale yooyu aussi il fale ñu seet leen dans la communauté donc ci kaw loolu def nañ ko mais gis nañ ni am nañ ci maanaam loo xamante ne mun naa wax ne ay point fort la loo xam ne euh, vraiment jàppale nañu jëmmal nañu mooy implication acteurs communautaire yi. Mm-hmm. ak engagement ñi nga xamante ne ay agents de santé lañ. parce que agent de santé yi ñoo leen doon gunge sur le terrain ñuy dem këroo kër campagne bi këroo kër la woon mais également suñu ay bàjjan ak relais communautaire dama ciy profito di remercier au delà bàjjanu gox bii dugg taxaw euh, taxawaayu bàjjanu gox yépp muy bàjjan Fanta Thiam bàjjanu goxu district sud yépp surtout bàjjanu goxu centre de santé ak poste de santé yi nga xam ne lim naa leen fi léegi ak seen ay relais communautaire donc ñëw nañ jàppale ñu ci campagne boobu parce que ñoom ñoo xam gox goxaan yi ñoo xam kër yi nga xam ne ñoo am xale yu am juróom benn weer jàpp loolu nga xamante ne mooy juróomi at donc ñoom ñoo doon guider loolu nga xamante ne ñooy agent de santé yi sur le terrain par rapport ak jafe-jafe yi jafe-jafe yi lenn rek la ku ne xam ne ne dañoo nekk ci période mbas mu am loo xamante ne ay rumeur la yoo xam ne day daw ci réseau sociaux yi. ba nga xamante ne nit ñi ñu ngi xaw di deltu gannaaw ak di ragal service yi nga xamante ne waa santé dañuy wàcc sur le terrain di ko joxe. soo duggee dañ naa ñàkk ñàkk bul bul excès bul excès donc loolu nekkoon na jafe-jafe parce que topp nañ ay équipe sur le terrain gis ci yenn kër yi lu ñu leen seen buntu ñenn ñi dañuy làqatu nela la amul xale. te soo xoolee kër gi relais bi dëkk ci koñ bi xam na ne kër gi am na ay xale donc loolu nekkoon na jafe-jafe yeneen kër yi aussi waajur yu jigéen yi ñu fay fekk dañ naa borom kër gi new fii te bu fi nekkul xale yi kenn mënu leen defal dara donc loolu nekkoon ay gàllankoor yoo xam ne vraiment euh, daloon nañu ci campagne bi doon nañ nag sensibiliser di naxtaan am nañu nangu mais am na ci ñoo xamante ne nanguñu ñu defalal seen doom. donc loolu man damay dajoor di woowaat population yi wax leen ne li nga xam ne moom la ñuy def ay activité la yoo xamante ne moom lañ leen di defal ci poste de santé ak centre de santé yi wàcc bi sur le terrain lii rek moo ko waral feebar bi moo ko waral ak aussi programme boo xamante ne ministère daf ko andi pour gën a jàppale rek euh, loolu nga xamante ne mooy district sanitaire poste de santé ak centre santé yi pour ñu mën a jot seen ay objectif parce que suñu seetloo ne que li ñu war a jot ci ay xale jotuñu ko faw ñuy organiser ay mini campagne di def ay intensification pour mun a jot loolu nga xamante ne mooy xale yi ci kër yi donc bu ñëwee ci kër yi pour gën ko yombalal waajur yi rek la mais seetlu nañ ne daal am na ci kër yoo xamante ne daal wuyuñu ñu ci loolu nga xam ne moom lañ leen di woo muy madame Rosalie. Mhm. Euh, mais ak situation bi nu mu demee ni mbirum euh, pv e waaw mais loolu dama naa na ci ñëpp jàpp rek. du ñu bu ñu tànqamloo mbirum PV aussi faw ñëpp jàpp ci muy yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci euh, fi nga xamante ne mooy euh, média yi ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci bërëbu fajukaay yi mais aussi acteurs communautaire parce que au delà relais ak bàjjenu gox am nañ suñu ay leader communautaire yoo xamante ne ay imaam lañ donc defe naa ne imam ba juróomi waxtu ci bés bi mu ngi jàkkaarloo ak ñi nga xam ne war na waxtaan ak ñoom suñu demee à l'église aussi le prêtre ñu def ay sermon waxtaan ak nit ñi ci taxaw bi nga xam ne war nañ taxaw loolu nga xamante ne mooy seen wér-gu-yaramu njaboot donc loolu également il faut ñu jàppale ñu ci gën ci waxtaan ñeneen ñi également que ce soit fu ñu mënti nekk dans la communauté ci boor bu ñu mënti féete ci par rapport à l'engagement communautaire aussi ku ne dugal ci sa loxo xam ne lii kat su jëmee kër du baax parce que ku ne xam ne ne sunuy yaay ak sunuy maam sunuy fàttaliku doom yooyu ñu daan am ñuy génn àdduna ni geeg ngas doom yooyu ñu doon am ñu doon lafañ te loolu yépp ñàkk ko fi génne donc defe naa ne tey bu ñu taxawee andi ñàkk nañ xam ne ay ñàkk yoo xamante ne liñ ci jublu rek mooy wérgu yaramu njaboot gi donc li ñuy ñaan population yi rek ñu jàppale ñu ubbi seen buntu kër xam ne ñun ñii leen koy defal dañoo am njaboot dañoo am ay doom dañoo am ay sët donc di leen ko defal donc defe naa ne duñu jël loo xamante ne luy gaañ suñu askan la di ko andi ci biir population yi. Mhm. kon nag euh, madama euh, Ndoye Khary euh, comme waxtu wi nga ñu mayoon dama lay bàyyi nga tàggatook auditeurs yi. Mhm. am naa tey dinañ ne cëkk na ndax d'habitude vingt heures trente la ñuy arrêté. Mhm. mais comme ni nga ko waxee ak couvre-feu bi ak fa nga jëm na mu soree ak jafe-jafe tamit ci wàllu dem ak dikk tax na ñu ñuy jéggalu rek nar ko fi yemale. ñaan nga ñu ko ñu may la ko donc dam lay bàyyi nga tàggatook ñoom. merci madame Rosalie donc maa ngi lay gërëm di la sant ci dalal bi ma dalal su FM mais mënuma jeexal sans pour autant wax ci waxu mbas mi parce que maa ngi la koy wax sànq ne la ñun benn lañ ci ñeenti districts yi nga xam ne ñoo gën a laale ak mbas mi. Mhm. fii ci région de Dakar si Sénégal sax laay wax parce que ñun ñooy euh, defe naa ne le trio en tête ci lañ bokk. ci ñi gën a laale ak mbas mi donc maa ngi waxaat population yi rek ne mbas mi mu ngi fii donc ñu continuer observer loolu nga xamante ne mooy matukaay yi nga xam ne waa kër docteur wax nañ ko muy li nga xamante ne mooy raxasu bi takk masque bi te takk ko ñu ko waxee parce que des fois aussi nga gis nit ki takk masque xëcc ko ci sikkim bi di wax ak nit donc yooyu yëpp nañ ko moytu beneen bi ñuy waxaat aussi ñu évité dajaloo yi parce que soo seetoo ñun quartier yi nga xam ne moom la suñu district couvrir ñi ñaa ngi continuer di organiser loolu nga xamante ne mooy dëcc yi ñi ñaa ngi continuer di def ay xew même bu dee ay euh, lu ñu koy waxee xew à la corona la ñuy def peut-être duñu bâche ci mbedd bi mais am na regroupement de personne te kenn du takk masque parce que loolu ñu ngi koy seetlu ci fi ñu dëkk te dañu nekk ci zone boo xamante ne mën naa wax ne ña fay yeewoo xëy na bu ñu barewul aussi ay millions wu nit ñooy xëy ñëw ndakaaru parce que bërëbu liggéeyukaay ya fa nekk te gis nañ leen ci yenn place yi yu demee ni marché yi yu demee ni garage yi gaaru ceer yi heure de descente ak yooyu ni fa nit yi di mel donc ñu ngi ñaan population yi ñu gën a observant par rapport ak loolu nga xam ne mooy matukaay yi dandante Euh, moytu loolu nga xamante ne mooy regroupement yi loolu daal moo ñu mën a musal ci li nga xamante ne mooy euh, li nga xamante ne mooy euh, mbas mi parce que dañuy wax ne ñi képp ku ko fa jëlee aussi di nga ko yóbbu ca quartier yooyu nga xamante ne moom nga jëm mm-hmm. bu dee banlieue nga dëkk aussi di nga ko fa yóbbu keneen koo xamante ne feneen la dëkk aussi dina ko fa yóbbu xam leen ne daal ñu ngi ak feebar bi ñu ngi dund ak moom te temps yi tar na gis ngeen ñi ci ñàkk seen bekket gis ngeen cas grave yi ñu am te chaque jour cas yi mu ngi gën a yokku donc man appel boobu laa amoon di leen lancé di leen wax également que population yi respecté seen rendez-vous aussi yi nga xamante ne am nañ ko quel que feebar bi nga xam ne moo leen dal ci kër docteur ñu war fa dem nañu respecté rendez-vous respecte respecté les mesures barrières ñëw def seen consultation dem seen doom bu waree ñëw peese wala mu ñëw jël ñàkk wala mu ñëw euh, ñu déparasité ko na parents yi respecte rendez yooyu pour mën koo wéyale donc loolu laa amoon pour di leen wax mag li Mhm. Euh, jërëjëf euh, madame Ndoye may jaajëfal ñëpp li nga xam ne euh, dugg nañu contribuer poser ay questions di leen jox dig daje talaata bi di ñëw ci beneen émission Allô Docteur di jaajëfal Assane Thioune suñu technicien. si Valda raaxul dara dàkkaandi kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Val d'Afrique moo leen doon may seen émission Allô